313 digital ravi de vous retrouver très chers téléspectateurs nuyu nañ leen di leen dalal di leen ziar fii ci télé wala site bi nga xamante ne moom ngeen taamul seen bopp nuyu nañ internaute ak euh, téléspectateurs yi safoo suñuy programme euh, mbaa yéen a ngi ci jàmm naka ngeen doxalee ñu doxantuwaat fii ba tey ci makkaanu cheikh bi euh, moom Niass dofu maam Khalifa Niass le mara de Sonko ku ko ku ko gis yaakaar naa ne xam ne euh, li muy wax luy jëriñ sénégalais yi la ku ko gis xam ne actualité moo tax ñu doxantu fi ñëw fi comme ni ñu koy defee à l'accoutumée wax ji nag euh, bëri na depuis démb ba tey Ousmane Sonko dina nekk candidat wala du nekk candidat Barthélemy Diaz li mu def war na koo def wala waru koo def yeewi askan wi seen taxawaay yooyu yëpp bëgg nañ koo waxtaanee waaye bu nu paree bàyyi ko tamit mu mu mu joxe euh, li nga xamante ne euh, luy jikk wala loo xamante ne day saafaray soxla yi ak jàngoro yi askan wi cheikh bi nuyu nañu la di la ziar. waa ba'da auzu billahi euh, maa ngi lay fay di fay. téléspectateur safoo di seetaan 313. Mhm. di wax ne euh, site bi suñ situ bopp la. Mhm. ñu ngi ñaan mboolem patriote yi ak mboolem fu doomi Sénégal nekk mu abonné ci di fa xaar suñuy image toujours. Mhm. duñ fi di gëj ndax euh, wax dëgg na yàlla patriote yi comme ñu fay gis rek danañ ci gis suñu bopp. Euh, ñu dugg ci dëgg-dëgg waxtaan bi. Mhm. mooy yàqu-yàqu réew mi. Mhm. réew mi nag du dañ ci du di yàqu. Mhm. tant que li fi ne ak ki fi ne ak ñi fi ne ñu ngi fi. di doxalee même système dana njaatal tey ci lan mooy système bi. ak lan mooy projet PASTEF. ak fi réew mi toll ak tolluwaayu askan bi lan la war a doon ci. jëmmi président Ousmane Sonko ak jëmmi projet bi. ñu ngi lay fay di dal sa kër bisimilah. laataa ñuy tàmbali li li xew Ngor yaakaar naa ne dégg nga ko euh, ñuy wax ci ñaari moor ci mbiru terrain boo xamante ne état bi mu ngi koy xëccoo ak population bi gis nañu sax Ousmane sonkoo génn sànq def sorti ne terrain boobu ñuy xëccoo ba tax tey ñaari bakkan rot ci matul sax benn hectare euh, ban gis-gis nga am ci li xew Ngor. gis-gis bi ma ci am rek mooy lépp lu ñu Ousmane daan wax dañ ko gis ci xar kanam mu ñu jiite réew mi ki mënta bàyyee lu tolloowut ak ñaari hectare mhm. su ne la danaa la bàyyi ci réew ci jàmm waroo koo gëm il faut ñuy analyse suñuy xel te dawal suñu xel tuuti mhm. ki xëccoog benn population quelques hectares ba ay bakkan rocc mën a du bàyyi kooku su ne dana su ne leen danaa leen bàyyi réew mi ci jàmm ñun ñun bu ñu ko gëmee dañuy nax suñu bopp il faut ñu dawal suñu xel aussi tamit mhm. beneen bi ci des mooy ku amul mënde ci ay hectares ci sa askan doo ko am ci sa réew lëmb parce que tey benn benn benn benn mbir moo xam ne mbir mu mbir mu doy di la ci nguur muy lan muy suuf mhm. taxaw tey xool delluwaat gannaaw du ñàkk jom mais bëgg sa réew la mhm. delluwaat gannaaw du ragal mais indi stabilité ci réew mi la delluwaat gannaaw aussi tamit du du ñàkk ak njàmbaar waaye dafay dolli sax njàmbaarte mhm. parce que tey ñaaru xar yu mbëkkante xar ma arrière et pourtant nekkul dafa yambar mais dafay uti doole ngir bu ñëwaatee kon arrière boobu ngay arrière defa ko ngir yambar mais da koy def ngir lan ngir delloo ci waat jàmmi réew mi mhm. ba ci des ñu ngi naqarlu suñ mbokki lébu yi mhm. di ànd ak ñoom naqarlu gi ba fa mu yem di am xol bu naqari ak xol bu jeex mhm. ndax seen biir lañ dëkk euh, lébu du jëw du fen du xëccoo lum moomul du wax lum gëmul direct na te fépp fu mu séntu boppam bëgg na faa séntu nawleem lii ku ko dëkkee ci ay nit ku ko okkul du la xuri kon nag nit ki lim moom muy ay ndonoy maamam ngeen ñëw nga ñëw bëgg koo jël ci forcement mu ne la doo ko jël ci forcément ba ay bakkar rot comme ci waxtaan ngeen mujj rek yooyu les problèmes nga njëkkee ko yow président de la république wala yow ñi la foofu. Mhm. par la comme ci la ñu mujj ba ay bakkan du ci rot imagine toi bakkan boobu rot. Mhm. waroon a nekk sa jëmm wala sama jëmm wala sama jëmmi doom wala sa jëmmi doom yow président de la république du la neex. Mhm. te ñoom ay père de famille lañ. seen njaboot seen i doom di ci deewee. Mhm. delloo si waatal sa xel nga xam ne réew mi fu mu toll nii maanaam jafe-jafe wala xeex wala histoire jibut la. Mhm. parce que dafa bari ñu guux fanaanal ñoo xam ne nii problème bu ndaw rek ñu buruxloo ci réew mi boy te loolu ñaanuñ ko yàlla te ñaanuñ la ko yàlla ndax yow la yàlla dénk réew mi kon delloo sa xel nga xam ne tey lii nii kat. du lu jaadu du luñ bëgg du rafet lu ñun kilifa yëpp. Mhm. parce que ñaaw na ba fa ñaaw yem. parce que mhm. tey képp ku wàcc si ndakaaru lébu yu ñoo dalal ci njekk ak teranga muy yow muy man muy keneen amul benn président de la république bu ma sa jógee sa dëkk ñëw jiite si réew mi lu dul lébu yu ñoo dalal. Mhm. waaye ñu dalal la nag démb dalal la dalal rafet tey war nañoo daw di jël ay bal di ko dóor seen i doom ñuy tëdd parce que lébu amul olof amul lu am nous sommes sénégalais. ñëpp ay sénégalais ñu ngi ñaan mboolem fu sénégalais yi nekk nañ leen soutenir mm-hmm. soutenir bi nag nekkul gàddu ay xeer di xeexan teg nangam waaye naqar ñu leen di teg ñu naqarlu ko ak ñoom ba réew mi yëpp xam ne ñu ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi mm-hmm. loolu naqadi nañu te neexul ñu te tey lañu ñu gën a naqadi mm-hmm. parce que seen biir lañ dëkk seen biir la ñu dëkk pour euh, wax ci mbiru actualité li xew démb euh, Ousmane Sonko euh, fu mu toll nii ñu ne procès bi nga xamante ne moo nekkoon en appel démb le 8 mai Euh, mujjee nanu ko daan six mois euh, yoo xamante ne dañ ci gàll deux cent millions yoo xamante ne da ko war a jox Mame Mbaye loolu nag dina tax Ousmane Sonko nekk éligible éligible xaw ma inéligible j'y arrive ci élection yi di ñëwaat mooy maanaam du mën a nakk candidat. waaw Ousmane Sonko moom ñàkk nekk candidat du Macky Sall moo ko koy def du justice moo ko koy def. Hmm. waxoon naa ko tey laa koy waxaat. dafa dépendre ci peuple sénégal bi. Hmm. première d'abord. deuxième ci peuple sénégale bi première ci yàlla la dépendre. Mhm. deuxième ci peuple sénégalais bi la dépendre. suñ ko dóoroon un an ferme ñëw jàpp yóbbu kaso tey la gën a nekk candidat tey la gën a doon candidat. donc mhm. Sasim ba ma ko waxee du tey du seen projet caaxaan yi mooy tere Ousmane Sonko nekk candidature. te huile problème bañ àgg ci élection ya Ousmane ko jël kayitam dem dépose ñu ne ko mënoo bokk ndax léegi lii foofu la ñuy xamee ba xam nangam nangam parce que Ousmane waxal na ko boppam parce que it euh, gis nga jàmm lu tëb rek xëy juddu mhm. dafa am luy indi jàmm. liy indi jàmm mooy àdduna bi yëpp dëppoo nañ ne li xewoon mars 2021 ba mu amee Ousmane ko moo delloosiwaat jàmmi réew mi kilifa yee ku nekk ñan na xale yi bawul. Mhm. waaye keroog bañ bàyyee Ousmane mu toog këram def déclaration boobee wane ne damaa bëgg ñu delluwaat seen kër ndax bëgguma réew mi mujjee ci loxoy armée te bu boobaa it réew mi liñ ci doon bëgg pour defar ko duñ ko mën a defarati delloo leen seen delloo leen seen kër ngeen toog keroog la ndaw ñëpp delluwaat seen kër ñu toog jàmm jooju Macky euh, euh, président Ousmane Sonko yéene Macky Sall ba mu àgg ba mu bëgg mu àggali nguuram est-ce que kii pare na pour pour jàmm jooju ñun ñu toog di xaar pour mu yeggali nguuram pour mu jox ñun ñu gouverner Sénégal wala ñu jiite Sénégal ah ah bi ci des mooy patriote yi nag laa koy wax huit yow laa koy jox yow xam nga man man nga mathématique xaw ma calcul lañ koy waxee mm-hmm. Mhm. plus 16 égale. 8 plus 16 égale Abdou Fall. 8 9 10 11 12 13 14 15 muy. 8 plus 16 xamoo xamoo lim doon. égal 24. 24 la mu jox la 2024. vingt 2024. muy ñaari projet yi le 8 le 16. xel mee sonn. Mhm. projet bi nekk lan cinquième mois. Mhm. muy cinquième président. waaw ah déglu bu baax li ma calqué te wax la ko. ci xaqiqa laay waxee nag. 8 mhm. plus 16 égale 24. Mhm. muy élection 2024. muy ñaari projet yi nga xam ne moo a tënk Ousmane pour mu dem élection 2024. Mhm. ñoom dañ koo kalkin ci baatin. jëli ay nit ay góoru sërif xam naa ci lu leer la may wax. jëli ay góori sërif ak ay ay lakkat yoo xam ne ñii ñu ngi leen jëlee Mali ñii ñu jëlee leen Guinée ñii ñu jëlee leen Mauritanie gii ñëw dugal leen fii ñooñu ñoo leen di jàppaloo ñenn ci ñoom ñoo leen jàppaloo ay dat nañ def dat nangam dat nangam ñu def le huit bi le bi ñu bamax ko di yoot di xool de lu baax li ma la wax le huit bi ñu bamax ko. Mhm. di xool ba xam ñu ba max ñu ba max six mois yaa ngi dégg. Mhm. de plus quatre égale six. Mhm. maanaam deux la woon ñu jël ñu jël quatre dolli ci muy six mois. Mame Mbaye ba mu taxawee lu mu waxoon dama bëgg honorer sama dara. vingt neuf milliards laa soxla. deux cent millions yi doyu ma kon tey quatre mois yi lañ weccoo vingt neuf milliards yi. kon ñoom 4 milliards 4 mois yi ñu dolli ko ci Ousmane bu mu dem moo leen gënal 29 milliards. ba tey bu dee ne xaalis la doon sàkku ba tax mu demoon fee def recours. Mhm. xaalis boobu anamu. dafa mu toogoon la toogaat ba tey. Mhm. léegi nga jël nga jël adat adadu siifir boobu noonu mu jox la lan mu jox la 2024 plus cinquième mois muy muy cinquième président ci cinquième mois bi nga xam ne ci lañ koy atte moo ci la Ousmane Sonko ci lañ ko war a valider la ñun askan bi cinquième président wala ñu ñàkk koo valider ñoom seen i xaqiq ak seen i galaj ak seeni i ñandal beneen bi ci des mooy. yëf yi lu mu jaral waa APR ak waa benn bokk yaakaar daf ñu koo desee jaral. ñu wax ñu wax alxuraan ji mu jeex. daf ñu koo desee jaral ci zahir daf ñu koo desee jaral ci baatin pour muy leer. nii may wax ak yow Ousmane Sonko pour mu noot lii muy xeex aajo woon juróom-ñaari gëlëm ñetti yi gëlëm yu weex lay doon. ñeent yi dafay nekk gëlëm yoo xam ne ni dafay raxi këlër parce que moom lañ loo ñi nga xam ne ñu ngi noot pour Ousmane Sonko noot googu dañ ko def ci askan bi yëpp kenn ku ci nekk fa nga toog ngay fipp di di di am lu la naqari sa yaram day nagab te doo mën a jug te doo xam loo tee lii lu am la. beneen bu ci des mooy projet démb bii la preuve que ni il fallait que ni ñu jàpp wala ñu téye wala ñu convoqué koo xam ne porteur de voix la te ci kilifa la ci biir projet bi. ñu jël benn élément boo xam ne seen TV la doon liggéeyee video boo xam ne ma ngi ko waxee kañ la ñu convoqué ko ci vidéo bu jël yóbbu. Mhm. te day xool chaque projet pour mu dem danañ xool porteur de voix boo xam ne nii te moom la ñuy jaaree pour téye ko pour wax bu mu jóg. Mhm. kon yëf yi dafa jaral gars yi ci zahir jaral leen ci baatin. parce que nag buñ fàtte la preuve président de la République moo njëkk a taxaw Kaffrine. Mhm. nekk li fi xewoon du fi xewaat. fu mu ko teg li fi xewoon du fi xewaat boobaag léegi armée bi dafa yokk. renfort dafa yokk dara yokkut ña fi nekkoon armée ñoo fi nekkaat armée ba tey au contraire ñu nekkoon ti ñoom ñu ci bëri dañu wàññeeku di ñëwaat ci Pastef hmm. mais fu mu ko teg mooy ci ñaan yàlla fu mu ko teg mooy ci nangam mooy ci nangam mooy ci nangam loolu yëpp bu demee ba jàpp ne manee na ko hmm. benn loxo du tàccu il faut la vérité ñuy waxtaan te dëgg sala hmm. bokk ñi nga xam ne kàngam lañ ñun lañ ca man suñ kém kattan muy ñaan yàlla muy kém sarax muy lañ te man suñ gëm taxawaay ña ngi ko cay def waaye am na ko foo xam ne bu fa yeggee yenn dirigeant yi wala ñenn ñi nga xam ne ña ngi ca kaw te parti bi jaral leen lu nekk ñuy ooteeg lu nekk nañ xool ñu man ñi wala ñu wàcc biir Afrique ñaanal yàlla Ousmane Sonko. parce que jamono boobu lañ tollu mhm. après bu ñu génnee si jamono boobu nag mu des jamono askan bi taxawu résister ngir lan ngir projet bi yegg. Mhm. résister yàlla moo ko njëkk wax ci alquran. benn ñaareel ba mooy projet bi dafa laaj jamono ji ñu toll képp ku ko kuy taxaw pour soutenir Ousmane Sonko jàpp sa benn tànk mu ngi bàmmeel benn bi ngi kaso amoo benn tànk bu nekk àdduna la toute façon mën ngaa fanaan mën nga mën ngaa fanaan mën ngaa fanaan nungu seen où est problème réew bu demee ba tollu foofu nag dafa jot askan bi jël responsabilité ma jël responsabilité am te génn ci ay détails yu wax ak ay ka kuñ maanaam tey képp koo ne tey Ousmane Sonko ñu ngi ko doon téye jaralu ko bakkanam waaye jaral na ko làmmiñam bu réew demee ba toll foofu noonu est-ce que jotul moom mu taxaw démissionné kon bàyyi ñu réew mi pour fekkee dañoo bëgg réew mi demee nii. foofu lañ toll. xam nga tax ma ñëw ma indil la système bi. Mhm. lim jaral gaa yi. Mhm. mooy comme jaral na leen ñu ñu taxaw noot Sénégal yëpp ci mystiquement. Mhm. te effectivement loolu moo am. ñu wax ko ak ñu bañ ko wax mu leer ak mu bañ a leer mais jëmmi Ousmane Sonko moom mënuñ koo noot ci dara ñoom. ba ñu xamee ne mënuñoo jàpp jëmi Ousmane Sonko dañoo kon léegi nañ jël adadu Sénégal jàpp ñi nga xam ne mën nañ leen a ñi nga xam ne nangam ak nangam bañ demee ba nga xam ne ñi xam ne mënuñu leen a jàpp ci garage sax dañ leen mën na jàpp ci garage ñi nga xam ne nañ leen jàpp ci garage ñu jàpp leen ñu téem seen téléphone yi di wax rek duñ xam lu leen teree génn pour léegi nag ñaar moo mun a am hmm. ñoom wane nañ fañ jëm ñun ñi ngi toog ne mukk wane wuñ fañ jëm ñun nag aujourd'hui maanaam ay problème mu Ousmane Sonko ak Macky ak yooyu moom aujourd'hui moom dama bëgg a faire maam passe boobu moom ma tëj ko ba mu mat sëkk teg ko di waxtaanee ci xam-xam ak njëriñu réew mi. parce que parce que dafa am foo xam ne bu fa réew nga dëkkee wax depuis 2018 ba léegi la ngay wax saafarawut est-ce que est-ce parce que Ousmane bu amoon la mu bëgg dëgg-dëgg du nekk di waxateeg askan bi. dafay génn ñu taal ecran yi mu xool askan bi askan bi xam li mu bëgg a wax mu dugaat foofu la war a toll ak Sénégal parce que li mu fi def ci sorte yëpp bu jëriñu dootu jëriñati mhm. lim fi def ci maanaam ci ishaara ci wax ak nit ñi liñ bëgg yëpp ci jëriñu dootu jëriñati mhm. mais dafa doy sëkk nag askan bi ñu xam lan lañ bëgg ñoom su dee dañoo bëgg Macky Sall gouverner leen à vie nañ taxaw ñu wane ko ñu bàyyi leen ñu mu gouverner à vie ñu tam tëddi noppalu parce que ñun li combat bi ñu soobu suñ bakkan da cee mën a rot Sénégal jaral ñu ko. Mhm. combat bi ñu sóobu leneen da cee ñun bu ñu bëggoon xaalis xam nañ fi ñu koy joxe xam nañ ñu koy joxe ñaat nit ñoo ñu seet si. mais soxlawuñ ko. ku bëgg xaalis moom ba koy bëgg moom jamono ji demal feneen waaye bul ñëw Pastef parce que yoruñ mais kon depuis 2018 ba léegi bu ñu nekkee di ànd ak Ousmane di wax ak sénégalais yi bëgg nañ sénégalais yi déglu bëgg nañ ñu xam li ñu leen wax lan la Sénégal rek nga ma tëjee ci point kii boobu Sénégal rek ngay gis benn per de famille pa boo xam ne bu yeewoo am na fukki doom mooy dundal fukki doom yëpp dundal seen yaay ak seen baay kenn amul xëy kenn amul ci gont paa bi day xëy di kulli kulli di kulli kulli ba xëy daanu feebar di continuer di joxe dépasse parce que lalu hôpital ba mu tëdd sax ña ko fay seet xaalis bu ñu ko fay a ci lay continuer di joxe dépasse mhm. doom yi làmm ne a liggéey mhm. loolu Ousmane taxaw ne da koy dindi ñii taxaw ne ko doo ko fi dindee léegi yéen père de famille yooyu yéen askanu Sénégal boobu da ngeen di yéene seen bàyyi di dee ci souffrir boobu noonu ba ngeen juddoogut ba ni ngeen juddoo ñu jox seen yaay dépasse ñu ci dee kenn parewut pour dimbale baayam wala yaayam Ousmane Sonko ñëw taxaw ne la loolu mën naa ko fay dind nu ma a topp leen ma Sénégal zircon baa fi gaz baa fi pétrole baa fi yeneen yu dul yooyu ñu ngi fi yooyu yëpp juddoo biir Sénégal ñu ne yéen du ngeen ko jëriñoo tubaab yële nga xam ne tekkiwuñ mi ñoo ñëw di buub di yóbbu di ko jëriñoo dañu noot seen réew sax da ngeen amaat beneen problème bokkul ak problème bu ñu dugg seen réew mhm. où est le problème kii yee leen ba ba desut lu dul lan lu dul huit mois douze ñu tëdd di leen nelawal kii di leen yee ci biir douze ans yi ba desut lu dul huit mois ñoom ñu taxaw teg seen acte buy wane ne kii du dem kii ñiy taxaw fii ci réseaux boo ko laalee boo ko nangam le problème boo ko laalee xanaa boo ko rayee la ñuy wax kii laal na ko laal nañ ko ba pare. Mhm. léegi boo ko rayee moo ci des léegi nag yéen yéenay xool ba xam bu ko rayee ci ngeen tollam déet. Mhm. fii rek lañ toll ak réew mi du leneen. fii parce que ñun lii ñuy wax tey. Mhm. boo ko tegoon suba suba suba suba suba ñu convoqué ñu suba suba suba suba maanaam loolu sóoraale woon nañ ko bu yàgg ñun mhm. mais danañ wax suñ aqulaay temps la ak suñ diggante suñ borom boo xam ne ëllëg yawmal qiyaam ëllëg buñ deewoon ci lii sax ñu tegal ko suñuy doom danañ siggi ne suñ bàyyi ndekkee un mois xeexal na benn fan Sénégal mhm. kon ñun lan lañ te beneen bi mooy trahison bi gën a bon mhm. ki gën a bon ci àdduna mooy ki la jël xëcc la ci boppam dugal la ci xeex boo xam ne gëmu ko ba nga dugg ca mu roccee ko bala sax te foofu lañ commencé àgg ak Ousmane te loolu warut ñu warut gor gor warut gor warut ànd ak moroomu goram ba mu neex ko mu rocceeku mhm. benn ñaareel ba nga laaj ma ci lan sànq Barthélemy Diaz no man am na détails yoo xam ne dama ci tontu parce que Barth moom moom moo wax moo weddi boppam xam nga nit boo waxee weddi sa bopp boo waxee ba pare weddi sa bopp mhm. la preuve euh, ban mitin la am na mitin bu fi amoon mitin akapes te akapes mhm. ba ñuy tëj euh, comment dirais maa ngi toogoon ci kaw tribune bi ba ñuy tëj euh, célébration wu mitin yeewi askan bi dafa jóg taxaw tagg Ousmane Sonko xamal ko ne ko kenn du la laal xeex bi ñu ngi ci ñu ngi ci yow ci kanam ci gannaaw ci ndeyjoor ci càmmoñ. fu mu taxawee tagg Ousmane Sonko ñu dalal ko Faram Facce la TFM mu taxaw wane ne duma dem ci Macky Sall tey du ma fa dem ëllëg. su Ousmane Sonko Khalifa Sall bu ñu téye candidature moom lay ànd ak. jina ma loo xam ne jiwu ko kenn taxawaat encore tey ne Ousmane Sonko jiwu ko dara loolu ñun luñ ciy tontu moom ma wax démb moo moo wax démb weddi boppam tey. kon loolu vraiment jërul tontu. Mhm. de un de deux mooy euh, Ousmane maanaam képp ku ànd ak moom ci biir Yewwi Askan bi war ko ñun du ñu bett mais moom Ousmane mu war sénégalais yi moom moo ñuy bett ñun. Hmm. man ci politique Ousmane Sonko war sénégalais yi loolu rek may bett ci politique même atta laa la wax atta ñi bokk biir parti Pastef nekk kàngamu parti Pastef yi. xëyee fa tey ñenn ca ñoom xëyee fa tey ne dem naa APR wala dem naa PDS wala dem naa feneen wala def fen def naa sama parti bopp mënatuma ànd ak Ousmane loolu du ma bett parce que Ousmane wax na ko tey daf ci bëri ñoo xam ne nag dañoo bëgg Ousmane ba lu ñëw këf leen yóbbaale leen bett leen mais maa ngi lay waatal ci yàlla ne la man awma benn émission bu may bett mhm. billaahi wa rabul kaaba parce que man tàgge nañ ma ñëw nañ tàgge ba lu ma gën a jege muy sama sama maam bi ma yar jur jur sama waajur bu jigéen tolloon ma foo xam ne ñëpp xam nañ ne maanaam buñ ñëw kii ko buñ ko ko waxoon ne ko diw diw de na rek day man man jaakaar nañu man mën naa dee ci sens mais fajar gi njëkk téléphone woo ma tombeeg ma julli ba pare war a tee course ñu woo ma sama waajuru jigéen moom woo ma jël téléphone bi ne ko salaamaaleykum mbaa jàmm yaa mu ne ma mu ne ma jàmm ak salaam ma ne ko ah bisimilah lu xew mu ne ma sa maam de lañ doon yóbbu hôpital léegi far far far yem foofa ma ne ko far yàlla def li gën ne ma waaw ma ne ko kullu nafsin zaa'iqatil mawti kullu man alayha faan wa yabqa wajhu rabbika zil jalaali wal ikram métti na ci xol waaye nag yàlla moo ko dugaloon ci xol bi moo ko roccuwaat ci xol bi génn ko ci xol bi bëgg ko yóbbu yàlla na ko jëmale fa gën ci moom mm-hmm. vraiment kii yu ma mu ne ko lenn moo ma doon bett ci moom mooy mu dee ci lu neexul yàlla mm-hmm. mais comme ci lalam ngeen ko fekk julli na ba pare tëdd ngeen jël ko di ko yóbbu mu gaañu loolu sant yàlla la parce que man mi man mii ñëw ci dëj bi sax xaw ma danaa yegg seen dett mm-hmm. kon cest pour wax la dañoo préparé suñ adduna démb tey soog dañoo préparé ko ci lan ci yarteefu l'islam la ñu préparé ñun ci ay ay ay ay ay ngatax ay ay ay ay baaw dénk ay cere yooyu lañ foyee. Mhm. yaa ngi dégg ay bataxoo ñun yooyu lañ foyee foyee démb tey soog dañoo kon tey mënuñu jaaxal. Mhm. moo tax Bart li mu def nii moom la engagé ah. Mhm. bu ñu fàtte nag ne am na ñu àndoon ak Cheikh Anta <laughs> ci bëri lañ mujjee moom. am na ñu àndoon am na ñu àndoon ak ci bëri fii lañ mujjee ñoom. te aussi tamit bu ñu ne. maanaam politique dara nekku ci lu bees Ousmane Sonko dafa wax bu am solo ma bëgg patriote di bàyyi ci xel ne man ma politicien il faut muy leer politicien mooy ki nga xam ne otoom day paan nga puus ko mhm. ba oto bi tàkk mu ne la bàyyi bàyyi doo ko gisaat lu dul mu paanaat ñëwaat te bu paanaatee ñëwaat yow sénégalais bi am nga xolu ak ñàkk fayda yi puusaat ko mhm. Ousmane Sonko nag ñàkk fayda googu la bëgg dindi ci yéen ba bu ngeen nit ba mu tàkk mu ne leen bàyyi bàyyi bu ñëwaatee ba leen ko fa moo ko bi mu ngiroo fa ba dee fekk ko fa ndax ëpp la fayda sénégalais nga comme yow jigéen jur ko jigéen jur la te jigéen ji ko jur gën te sëy sa yaay kon bu mu la woon fayda fu la fu la ju mhm. a wax ci wax ji yëpp mooy lan mooy bu leen dara bett lu mënti ñëw mhm. parce que man Ousmane assumé naa samay responsabilité l'essentiel li mooy man Ousmane fépp fu ñu may séntu ci yàq Sénégal duñu ma fa gis mhm. fépp fu may séntu ci defar Sénégal dañu ma fa fekk lu dul du man la du leneen te beneen bi ci des mooy bu ñu fàtte ne Barthélémy bokkul ci leader coalition Yewwi Askan bi il faut maanaam ngeen ni bàyyi xel aussi tamit mu ngi mel ne tey Abbas Fall mu jugoon di wax. engagé wul parti bi. Ousmane Sonko la engagé. mu jug di wax. exemple. wala Birame Souleye mu jugoon di wax wala Cheikh Niass mu jug di wax wala kenn ku jug di wax. engagé wul parti bi. ki mu engagé dëgg-dëgg bu jugee wax mooy président Ousmane Sonko. parce que lan parce que moom mooy leader coalition maanaam. li ko sax du leneen. waaye Cheikh bi euh, élection yi di ñëw moom. Euh, deux mille vingt quatre nar na bu dee nii ñu ko euh, nii mu tàmbalee nii la nar a euh, jëmee ca cappaandaw la nar na doy waar. comme c'est-à-dire. ndax ñeent ñi fii gën a mag ci politique yëpp ñeenti ñooñu ñëpp fu mu toll nii kenn mënu cee doon candidat Macky Sall mënut a doon candidat. Euh, Khalifa Sall mënta doon candidat Karim Wade mënta doon candidat Ousmane Sonko mënta doon candidat ñeenti ñooñu ñëpp kenn mënu doon candidat te ñeenti ñooñu ñoo gën a mag ci politique ci Sénégal. non cest à damay bañ damay bañ xottuwaar ma bu ko defee ñu ne ñu waaye ñeenti ñu ngi fi kenn kenn rek moo ci soxal Sénégal <laughs> uh-huh. pour que dire vrai muy leer. Mm-hmm. te kenn kooku ji loo xam ne. ñoom fayuñ naar bi xoromam. Mm-hmm. parce que Ousmane Sonko rek ngay gis ci point de presse ak fu mu mënti nekk muy insister ne Karim Wade dafa war a ñëw Khalifa Sall dafa war a ñëw. Mm-hmm. depuis 2017 ba léegi muy insister ci loolu. Mm-hmm. kon kii amul lu mu leen deseel ñoom pour man. mais ñeent ñi nga wax ñoo ñëpp kenn rek moo ci mënta bokk. te dafa war a jaral sénégalais yi nag lu mu ko jaral moom. muy président Macky Sall moo warul bokk. parce que moom 2012 moo fi nekkoon ak ñun di xeex bokk. même Abdoulaye Wade bokk na sax mais moom bokk na si ñu doon xeex ne warul bokk. xanaa kon moom li mu doon xeex démb gëmu ko tey. bala ma dee ñu ne constition bi. Mm-hmm. nañ xaar constitution bi waa léegi nañ xaar constitution bi constitution bi pour pour mu jox la euh, nu ñu koy waxee sax. Mm-hmm. constitution bi xaw ma nu ngeen koy waxee. conseil constitutionnel. conseil constitutionnel xaw ma. Mm-hmm. pour mu jox la dëgg wala mu ñàkk laa jox dëgg day fekk nga bind sa rak nga bind sa sa kayit yow ba pare na damaa war a bokk dem yóbbul leen ko. léegi ana ki war a bind moom mooy constitution boppam. mooy lan mooy mooy mooy moom moo war a am yaqin ku doy ni mu mu leer ma ne suma ma àggee ci fële. Mhm. mën nañ maa validel mën nañ maa bañ a validel lii bari cee am mën naa validel sénégalais yi lu leer. mooy lan mooy ma validel sama bopp ne man sama ngor mooy sama constitution. Mhm. sama dignité ak sama personnalité moom mooy sama constitution moom moom mhm. moo ma xañ may dem di di déposer loo xam ne. ngor mayul ma ko. te kàddu jiit na ma ci loolu. waruma koo def lii kese la du leneen. li ci des mooy yenn politiciens yi nga xam ne ñu ngi ci tele yi ñu yebal leen ñuy tappaleeka di xaw-xaweeka di yuuxu nit ñi naan ay ñoom xanaa 2012 ba ñuy xeex Abdoulaye Wade xamuñu woon ne conseil constitutionnel mi ngi fi xanaa xamuñu ko woon kon ñoom mm-hmm. ñoo ko gënoon a xam ñëpp gis nga ndaw ñi ngeen daan nax ñoo yeewu mm-hmm. li tiital nag ba tax ñu dóor Ousmane Sonko 6 mois yi nag xam ngeen ma wax leen benn affaire nag ba tëjee foofu mm-hmm. dañoo ñu ko def 3 mois yaa ngi dégg di xool askan bi làmbaatu askan bi na ah trois mois de moom deux mois kon deux mois la. dañoo njëkk a def deux mois ñu ne ah mois mën naa dem élection. ñu ñu ñu ronke deux mois yi dem ba six mois six mois ba ñu dugal la fa code euh, article trente article vingt neuf. ñaari art ñaar xam naa tuuti nag maa ngi leer article yi <laughs> ndax fi mu toll nii gars yi dañu sonal ci ay article ñu def article trente article vingt neuf. Mhm. ñaari article yi fii wax lii fii wax lii. Mhm. ñu ba fa dossier bi. ne peut-être fii mën naa arranger état. fii mën naa arranger Ousmane Sonko. su fekkee ne bëgg na waxtaan dialogue. ñu xool li arranger Ousmane Sonko boole ko jox ko. su fekkee bëggul waxtaan bëggul dialogue. ñu xool fi arranger état état xëccoo fa ak moom. léegi nag ñu sànni leen bal bi yéen askan bi ñu ne léegi bala ñoo dem ci lan bala dem ci le 16. nañ ko galgal fi ba pare léegi bàyyi askan bi ñuy werante ci mën naa dem mënul dem mën naa dem mënul dem ba le 16 na pank jot. ñu xool askan bi lan mooy seen réaction bu fekkee nooy na ñu ci problème mu Adji Sarr dóor ci kawam. na ko e eh, pour pourtant lii yëpp leer na defoo waaye nangam nangam waaye pour eh, pourtant maanaam yaa oo ndaw ñu ñu génn. ndaw 14 personnes yooyu mort sa kaw lañ koy teg. peut-être ñu dóor la sur un an ñu dóor la ñu dóor la ñu dóor la kaso nangam. léegi na ñoom coowul yëpp. xeex bi dafa am lenn lu koy jeexal ñoom bëgguñ ko faa teel a yegg mooy lan mooy téye nañ Ousmane Sonko yóbbu nañ ko fanaane na kaso xam nañ ne foofu buñ fa yeggee rek maam wax ji raay raayal geeg nengi nengi yëpp day jeex loolu moo gën a nekk dangereux ñu dóor ko parce que Sénégal ñoom li ñu liir mooy sénégalais yi mën nañoo dékku lu nekk ba kon ñun nañ kale ci yii ñii ñu wax la léegi lii yëpp ñu wax nag moom la Ousmane junj tey dafa am lu koy regle lu koy régler du téye sa clavier du nangam du nangam droit loi yoon moo la may nga génn manifester wane sa naqar waaye sénégalais yi li ñu waxoon ne buñ fa yeggee euh, réew mi tàkk yooyu yooyu yëpp yegg nañ fi tey réew mee réew mee ngi ne mooy li ma la wax ci gannaaw dama ne la ci buntu bi dama ne la dafa Macky Sall dafa taxaw avant artu sénégalais te sénégalais yi dégguñ li mu wax mhm. te ñim ñim jànkuwanteeg muy muy parti Pastef ñu ci bëri dégguñ li ñu wax mhm. ñenn ñu mel ni man nag déggoon nañ li mu wax parce que Macky Sall bu naan li fi amoon du fi amaat mhm. jubluwu ci taxaw di xeex di dóorante parce que xam na ne bu fekkee population rek la kenn mënul xeex ak population bi léegi nag mu togg loolu ay at imaginel ay dossier boo xam ne tëral nañ ko deux ans un an yëkkatiwuñ ko muy dossier Adji saar mm-hmm. ci diggante bi ñu xam ne bu ñu tëbee laal ko rek problème am ñu xëcc Mame Mbaye Niang saraxa ko na ko dugal ñu appuyé la Mame Mbaye Niang dugg ñu def ñu def ñu def ñu jugement ñu taxaw ne juge bi juge bi Pastef la. ñu def test daal. waaw ñu ne juge bi Pastef la. Mm-hmm. nañ ko nañ ko nañ ko kiyaat léegi ki dóor Ousmane Sonko 6 mois yi ki ko lan la kon. kee 2 kee mois la. Mm-hmm. kii def 6 mois léegi ki ko dóor si 2 mois lan la. kon même Mame Mbaye Niang mi génn na justice bi doyloo na àtte justice bi naan dem ba def defaat recours na doyloowu ko sax ci yoon yoon da ko waroon na daanat moom ne ko yow lan moo tax ñu teg fi ay juge yoo xam ne nii ñu jàng lañ ñu mat lañ. ñu àtte yow nga génn na d' accord nga ci àtte bi demaat sa kër na d' accord ci loolu enquête daf ca waroon a juddu ko lu tax ñaari wax yii nii. lu tax nga génn na d' accord nga dem sa kër na d' accord. Mm-hmm. loolu àtte daf ca na a judduwaat. beneen bi ci des mbaa yëg nga ne Mame Mbaye Niang mi ñu def loo lii avant attem plainteem di jug Ousmane Sonko moo njëkk a plainte Mame Mbaye Niang pour mu ñëw leeral xaalis bi mais boobu xam nañ ne bu Ousmane bu Mame Mbaye Niang ñëwee uy su uy si Sonko dana teg preuve ci table ji parce que Ousmane Sonko moo ko wax kaay ñun kaay nga leeral si Mame Mbaye Niang bàyyi ba yëfi sedd mu gaaw a plainte ko ci suuf ne daf maa diffamé ñu ëlbati carte gi mam Mbaye ñaa génn ne honneur nañ sama der nangam na gars yi ne ko yow ñun bu ñu fontoo ñun honneur sa der daf ñoo tax a jóg ñun dafa am lu ñu soxla lu bokkul ak loolu te lañ soxla avant Ousmane wax na ko te te wax dafa méngoog li def mooy lan mooy Mame def ne woon moom 200 millions yi dafa ndaw 29 milliards a soxla ko ko joxee da joxe daara mais Mame Mbaye ñaa ba ñu dóoree Ousmane Sonko 6 mois yi ko mu waxati waxu honneur deram ba mu dem waxati na lu jëm ci loolu 4 mois mooy honneur der <laughs> kon de honneur der yomb 4 mois mooy honneur mooy mooy raxas sa der 4 mois 4 mois moo ko gënal 200 millions. Mm. kon y' a quelque chose am na lu xew ci biir. am na lu xew ci nag moom lañ bëgg sénégalais yi xam ko. Mm-hmm. xam ngawti ngawtee ak këlti këltee gi ñuy def Ousmane Sonko. Mm-hmm. su ko ci yëf yi sàppee man Ousmane maa ngi koy ñaan te yàlla tax sénégalais yi bu fekkee xeex bi nga xeex mu jaral la ñu rajale ñu rajale impôt demen mm-hmm. sa sutura mënoon a xaaweeku te xaaweekuwul. nga nekk biir assemblée nationale ñu dund sa mbubam kiiraay jël la teg la viol nga am njaboot am doom nekk père de famille di joxe dépense ñu jul ñu dé ñu déete la jëlee foofu di la gazé di la dóor ay di ànd ak yow yow yow rek lañ gis seul leader boo xam ne boo ànd ak da ngay dem ba mu jeex ci ngor ak njëkk ak teranga mhm. Barthélemy mii tey bañ ko convoqué fii tribunal yéen journalistes si yëpp a nga fa woon mhm. moom Ousmane Sonko rek moo ci génnoon comme leader ànd moom gunge ko bañ koy gazé mhm. waa tey kii bu lebalee li sénégalais ba lebal ko ay moromi leader am yoo xam ne nii mën na ko see bañ a fekk est ce que jot toog tëpp suñuy bët tey suñuy micro rek di wax wala di ko xippi ko seetaan mhm. foofu dafa doy bu fekkee nag fii la réew mi mu ñu nar a mujjee ci moom na toog Casamance bu mu ñëwati le 16 bi moom fu mhm. pour ñu am ca ndam foofu la daanalee ci mbirum actualité le 16 bi pour ñu am ca ndam mhm. wax naa ko ci njëlbéen dama ne comment dirais-je plus 16. Mhm. égal nga ne ma xaw ma ko may na la 24 muy 2024. Mhm. mooy ñaari projet yooyu ñoom dañ koo noot ci 2024 bu Ousmane dem mhm. léegi ñu noot ñu nootee ko ci lan ñu nootee ko ci cinquième mois ñu ngi ci cinquième mois. 2024 cinquième mois mooy lan mooy 2023 kon cinquième mois mooy lan 1 2 3 4 5 Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade Macky Sall Sonko. léegi nag pour Ousmane Sonko boobu jàll dama ne la juróom-ñaari gëlëm mooy nekk mooy saraxam moom. juróom-ñaari gëlëm yoo xam ne nii nag maanaam moom Ousmane ci boppam wala wala ñoo xam ne nii ñan lañ ci leader parti bi wala ña ne ca kaw man koo def ku ku ma ci contacté wala nga contacté ci yenn kilifa yoo xam ne xam nañ nañu ilmu lasraar ñu wax la ko nga def ko nam nam waree billaahi wa rabbul kaaba wala sées boobu dana leen noot ba ba toog seen kaw lii kese mooy maanaam jam am hmm. te man pare naa pour jënd ñett yi man pare naa pour jënd ñetti yi hmm. ku pare nag na wax ma génn xaabi teg ko ci loxo kenn ñu xool kuñ koy teg pare naa pour génne 1 million 800 joxe ko barke xalifatul Haaji Mouhamad Niass tay tay tay bu ñu ñëwoon mu bind sec léegi jox leen neen dem leen sama wàlla ngi nii xool leen nu ngeen ko montalee bu benn dërëm jaar sama loxo yi nay la parce que Sénégal boo waxee fii léegi ñu ne mm. waaw moom xaalis la utuma ci tous bu benn dërëm jaar sama loxo bu ñëwee kon sama 1 million 800 jox leen ne leen am nañ xool kuñ óolu ñu teg ko ci loxoom buñ paree ma ne leen jël leen oto àndi leen diw leen frontière nangam dem leen nangam dem leen ko nangam kenn mënu koo tere doon candidat mais dafa am loo xam ne dafa jaral ñële man mii wax ak yow am na genn góoru shérif goo xam ne bokk nañ ci ñu njëkk reté mu ñëw fii bokk ci ñiy ñaanal pour ñu noot Ousmane Sonko te góor googu bokk na si ñi ma jàngal lasaraar billaahi barke xalifatul haaji Mouhamad Niass barki biig ci guddi lañ commencé waxtaan minuit ba deux heures du matin mu ne ma sama xol mayut ma ma yëkkati xaxaar di ko dagg di ci dugal turu Ousmane Sonko te et pourtant fay nañ ma duma ma jaar ci tur nag parce que mën nañoo nangu lañ ko jox léegi. <laughs> ne ma mais dagg na naa mu xaar bu bëgg ci dugal turam. Mm. mais sama loxo day lox. ma ne ko ah, attention de. Mm. wa yamkuruuna wa yamkurullahu wallaahu xayrul maakiriin pexe moo teg. Mm. yàlla bu koy teggi du la tàggu. te nag wallaahu yaxsimuka minan naas. Mm-hmm. yàlla mooy sàmm te mooy aar te Ousmane bokk na si ñu yàlla aar te bëgg naa sa bakkan ba gudd fan. Adji Sarr de gis nañ ko tey mu def vidéo sënabaat encore di dugal. nañ jàll feneen. <laughs> ñu ñu. <laughs> da may da ma wax ndaw su am kilifa ba ma waxati ko amul kilifa. Badou. Hmm. <laughs> defe naa ne looloo fi looloo fi nekkoon ci mbiru actualité bu dee am nga leneen. loo dese voilà bu ko defee ñu. ñu sant gërëm ñëw ci. faj mi. Mhm. dañuy dañuy gàttal lool. parce que ni lañ bëgg di faj bee a yitteel actualité man. voilà ni lañ bëgg di émission yi faj bi bi ci jiitu mooy dañu indil jaaro lew nañu bi. muy mhm. secret jaaro bi nga xam ne. Euh, ismaila al azam bi ciy nekk muy xawaatimu Souleymane bi dañ koy liggéey ci kaw jaaro bi mhm. ñoo koy ñoo koy la nga xam ne mooy ci réew arab yi xaatim bu ñu soxla rek lañ ci commandé parce que dañ ko daan bind du ko def téere ci biir mais téere bi souvent bu koy bu ko daan euh, tëj léegi ki nga koy jox bu fekkee maanaam ngëm-ngëmam dafay des bu ko ubbee xool gis kayit gi xaw a lakk tuuti rek mhm. du gis téere du gis dara du gis bind du gis dara daf naan yow euh, lu ñu rek nga ma jox mhm. moo tax dañuy obligé léegi jël xawaatim bi nga bi nga xam ne mhm. bi la moo la bu takk nga dara euh, beneen bi ci des mooy jaaro bi bi képp ku ko am dafay taxaw taxawaay ñett. Mhm. bi ci jiitu dafay ànd ak cangatu kaaraange protection. nga xam ne képp koo xam ne pare na pour fexe la du egg beneen bi ci des dafay ànd ak euh, cangatu bayre mhm. nga xam képp kuy ñëw ci yow daf bëgg. parce que nit balañ laa jox faaw ñu bëgg la. Mhm. beneen bi ci des aussi dafay ànd ak cangatu ubbeeku. mooy da dem ba da man lan moo may jox. billaahi wallaahi taala parce que képp ku ko takk ku la gis dafay yaa ngi dégg su la gisee aussi tamit pour mu liggéey ak yow daf koy yàkkamti. Mm-hmm. loolu moom mooy secret jaaro lew nañu seen bi ngeen gis. jaaro bi ku ko am tàqali ko ak ñàkk. macha allah mu ñëw ci traitement wu kaddu kër gi muy ngóor a. Mm-hmm. góor mën naa am ay milliards te du am kaddu ci biir këram. impuissance mm-hmm. sexuelle nag ñeent la benn bi mënuñ koo faj muy judduwaale. kooku programme yàlla la yàgg nañ ko wax. bu fekkee rab la côté bu mu ñëwee traitement bi daf koy saafara. su fekkee aussi tamit euh, maanaam feebar la côté bu mu ñëwee daf koy saafara su fekkee liggéey la mooy nit doomu aadama def la lu wax takk xala wala mun liggéey la wala yu mel noonu daf koy traité mhm. bii nag enveloppe bi ngeen gis mooy suñ mooy suñ mooy suñ traitement ñetti traitement yi ñu la wax yëpp mi ngi ci biir enveloppe bi mhm. enveloppe bi dafay am suñ tamponné kuñ jox enveloppe kuñ jox traitement ngóora ne la Cheikh Niass moo la ko jox tamponné bii nekku ci mhm. nekkul man parce que ñun patriotes yi lépp lu ñuy joxe jamono ji mhm. day ànd ak sécurité mhm. wala sécuriser boo xam ne mhm. luy dugg sa biir rek dañ koy xam parce que ñun dañoo gaaw ci ay dossier xefe xëpp ñu mëntal ñuy dossier moo tax moo tax fu ñu teg suñu tànk dañ koy xam dossier kàddu kër gi waaw kàddu kër gi la ko joxoon ak <laughs> nangam nangam ak indil la ay yu kenn xamut ñoom daal ñu noonu rek laay ñii ñoo ñàkk fayda <laughs> yaa ngi dégg euh. ñu indil leen bi nga xam ne moom mooy hémorroïde ak ndoxu siti bii mooy traitement wu hémorroïde ak ballottement mooy biir buy xururu ballottement waaw ballottement baaxul danay danay def góor nu doy waar wala mm-hmm. jigéen mm-hmm. danay toog da ngay toog ci biir mbooloo sax booy ngelawal doo ko tey mm-hmm. te doo xam lu ko war a fekk ballottement la hémorroïde bu yàgg nag mooy def ballottement nga ñàkk koo faj ba mu jur ballottement ballottement bu yàgg mooy dem ba jur yenn feebar yi day dem ba jur cancer day dem ba jur ulcère day dem ba jur jabet parce que day dem ba nga xam ne sa lekk bi sa maanaam butit butit sa si bi nga xam ne mooy mooy circuler pour mën a jàll ci biir butit bi nga xam ne mooy jox lekk gi pour mu segg ko maanaam li war a jaar fii jaar fii li nekk cabinet li nekk ndox butit boobu mooy faible ba dafay mujj jaxasoo mm-hmm. kon loolu baaxul nañ koy jima teel a traité mm-hmm. ñu ñëw ak yow ci bi nga xam ne hémorroïde spécial kese lay faj mm-hmm. bii moom mooy faj hémorroïde ci trois jours warabul kaaba bu fekkee bu génn la sunguf bii ngay gis ci biir moom lañ lay jox boo boo euh, nga diw ko ci booy tëdd boo yeewoo mu toj. Mm-hmm. moom moom benn fan la koy opéré. amul tey amul suba të def ko ci boy tëdd boo yeewoo mu toj bu fekkee ren la moom ngay xooj di ko naan mooy raxas li nekk ci biir bi ba mu set wecc. Mm-hmm. biir buy xururu rek maanaam ngay xasanoog okotoog suuf tànk yi xarak bët yuy tànk ngay fudd mm-hmm. di xiif doo mën a lekk. sa ron làmmiñ bi di xasanoog yooyu yëpp da koy dindi ak nopp yu riir. Mm. Euh, man ma tëjee nag ci parfum bayre bi. parfum bi nga xam ne mooy wax naa ko képp kuy jaay bëgg a jaral fexe koo am képp kuy jaayu it bëgg a jar fexe ko am. jaayu mooy hmm. am nga soxna. amaguma soxna waaw comme comme yow exemple man mën naa ko misaal ci yow <laughs> jaayu mooy xale bu góor bu mënta am soxna bëgg na ko waaye xamut. bu koy jëfandikoo yàlla dana ko tàggatal koo xam ne dana ñëw ba ci moom mu leer ko ne kii mooy soxnaam te seen dund du yàgg bu fekkee jigéen la muy faru rab sonal ko muy mm-hmm. dàqe te xamul lu waral loolu mm-hmm. bu koy jëfandikoo yàlla dana ko suturaal dana ko dimbale bu dee kuy jaay la moo xam oto la moo xam kër la moo xam njaayaatu yu ndaw yooyu la wala mm-hmm. ambulance mbirum jaay waaw mbirum jaay rek lépp looy jaay bëgg mu jar waat naa ko ci yàlla ne boo koy jëfandikoo lépp looy jaay mu jar parce que kii dañ koo daggee ci xawaati mu yusuf kii képp ku koy laal billaahi wa rabbul kaaba fépp foo aw nit ñi xam la ak koo mën a doon. Hmm. te sa wax day saf nit ñi. Hmm. sa kàddu saf nit ñi sa xar kanam neex nit ñi. tabaarkalla. waxuma ne nag moom laay laal waaye maa ngi ci xaw ma tuuti parfois <laughs> voilà ñaar yi nag lañ tëjee bii pour rab la. ku hmm, rab jàpp wala nitu guddi mooy ñu wax dëmm. parfum la waa non du parfum kii sunguf la kii bu ma la ko bu ma la ko essayé woon léegi. nga xam ne yàlla jull la santaane gis nga jege si ma moon la. gis nga kii ni koy gisee nii. maam defal sa bakkan yi tuuti rek nga fontu boo koy fontu ti sool yi lay lay la te si te maa bañ a fontu ah de baax na de parce que yéen da ngeen dem ci terrain beeg fu bi jeex dem ci terrain beeg fu ne <laughs> bu émission rek defal hmm. nii rek fontul bu baax moom dugg sa bakkan hmm. baax na de baax na lool fontul xeeñ na xunnu jox ko xeeñ na xunnu gis nga kii ku nitu guddi jàpp dem boo demee Saalum fële boo fontu bu baax mu dugal hmm. ko sa bakkan rek fontu ñëw na ba fii sax xeeñ na xunnu jeex na da ngay tisoo yi léegi tisoo yi lu métti parce que boo demee ci àllub Saalum bi buñ jàppee. waaw sëñ lii lii moom lan ak a ci ne. kii sungu benn sunguf bu ñu liggéeyee suñu mbiru bopp la. kii boo ñëwee fii ci kër gi bu la ku ku kii jàpp nitu guddi dëmm. Mhm. dañ ko koy fondu ci bakkan mu xenc bu baax rek. day toog dans deux minutes une minute rek commencé tisooli. tisooli gu takkar naa sa nag. parce que li waral loolu mooy dafa am benn dafa am benn affaire buy jàpp doomu aadama boo xam ne bu nekkee ci yow li waral mu nekk ci yow ba war laa bàyyi xam nga mooy lan. Mhm. mooy nga dem ci maaman yi. bala ngaa ñëw ci maamani nag njëkkeel ci hôpital. parce que hôpital moo lay moo lay permettre nga ñàkk a xam li xew ci yow après nag sëriñ bi soog di mën a xam ne lii kii lii moo tax ma man koo def lii kii lii moo tax ma mën ko def lii mais kii ku dëmu jàpp kii yemoo ceeg leen waaw kii ku dëmu jàpp moom wala rab <coughs> ki dëmu jàpp wala rab tisoo léegoo sax <coughs> ma ne ko ci <coughs> tisoo léegoo sax laaloo ci dara ma ne ko ci laaloo ci dara Ah, bu la bu la dama la jàpp nag. war na yoo xam ne tissu li d'accord. Ah, mhm. kii dafa doy waar de. doy na waar trop. pare gode kii dafa doy waar trop. parce que kii rab dëmm. Mhm. wallaahi asim kum jàpp bu ñu la ko xeeñculee nga tissooli am na ñoo xam ne dañuy tissooli bay tissooli gëmm deret. parce que day toog ci sa yuur gi. xanaa xam senegal bari na ñun suul te deewul. bëri na ñun suul te deewul. <laughs> li ko waral liiral rek bàyyi mm-hmm. suñ bàyyi suñ buntu yi rek bàyyi suñ buntu yi mm-hmm. waaye kii ku rab jàpp wala rab di la yàqal ak yu mel noonu heure boo xëyee nga xenc fontu ba tisool yi li nga war tisool yëpp ba sël mu jug sangu dem jeex na mën ngaa toog semaine deux semaines bu ko <laughs> dimbale ko balaa balaa émission bi di yàqu voilà bu ko defee tàggoo kon gaaw tisool yee neex <laughs> kon sëñ bi ñu bàyyi la tàggatoo ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne sénégalais yi ñoo suñ doole ñoo suñu xarit ñoo suñ yaakaar mm-hmm. euh, xasuñu leen dañ leen a tagg tagg gi mooy lan mooy bëgg nañ ngeen dimbali ñu ci jëmm ji nga xam ne yàlla moo ñu ko tànnal muy président Ousmane Sonko ngeen taxawu ci ay mbiram comme ni mu taxawoo ci suñ mbir nañ jàpp ci ay mbiram ni mu jàppee ci suñ mbir mm-hmm. le 16 nag mooy suñ dernier sànni tàccu ak moom mm-hmm. dañoo waxoon ne le tëri le 8 bii ñu passé le 8 bi yëpp ñu ngi sénégalais seen réaction mm-hmm. parce que nag jàpp nañu sénégalais yi jamono bi seen réaction mooy Ousmane Sonko bu mu dem candidat daf leen arrangé ñun loolu lañ jàppagum ñun xam ne nii maanaam yàgg nañoo sonn ci xeex bi liy dëggal wax jooju nag mooy bal bi mu ngi seen mu ngi ci suñ suñ loxo du ma ne seen loxo parce que génn mu ci sama bopp. mu mhm. ngi suñ loxo nuñ bëggee rek état bi doxe ak ñun noonu. yot nañ benn pas mu nooy ñu yotaat beneen mu nooy beneen bi buy ñëw nag buñ naan Ousmane Sonko condamné nañ ko un an ferme pour tëj ko bu mu ñu bett. Mhm. bu mu ñu bett ah, te lii maa ko waxee fi nañ jàpp daggatee parce que nag bay sa wew tànk nañ téye Ousmane fooyee nañ seex Anta Diop ba mu dem ñu fooyee ñeneen bañ dem ñu fooyee jàmbaaru Afrique bañ dem. Ousmane moo ñu dese comme jàmbaar bu war a soutenir réew mi buñ ko fooyee nag ñàkk suñu àdduna mm-hmm. ñàkk suñu àllaaxira mm-hmm. ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp seen mbokk seen xarit Serigne Cheikh Tidiane Niass dafa maam xalifa Niass la marabu de Ousmane Sonko. Mm-hmm. jërëjëf Abdou Fall kon ñu ngi jox dig daje. Euh, mbokk internautes yeeg téléspectateurs yi fii ci cent 313 digital ki lee di euh, Cheikh Ahmed Khalifa Niass. Cheikh Ahmed Tidiane Niass euh, dofu maam Khalifa Niass le mara de di ngeen faral li ngeen koy gis fii ci biir 313 digital dina bëri lool incha allahu rabbi ndax. ngëneel la ci jaam ñi bu waxee ci actualité jàngat ko jàngat boo xamante ne dina ci yee ñu bëri waaye bu waxee ci mbirum soxlaay jaam ñi wax ci loo xamante ne dina dalal xel yu bëri ndax dina am ñu bëri ñoo xamante ne amoon nañ ay jàngoro waaye buñ ko déggee moo wax dinañ ne ah, kon jàngoro ji ma dal am na saafara tichooli naa nag bay bëgg a dee waaye defe naa ne euh, man man daal nga ma nga bëgg def test fu mu tool di man ci ci ci garab yi. <laughs> loo ware daal man ma man maa doon. comme gars yi seen article yi seen <laughs> sama garab yi ci yow rek. <laughs> kon ñu ngi jaajëfal ñëpp di gërëm Abdou Fall. Ah. mi nga xamante ne moom lay àndal à chaque fois di gërëm waa régie ba ci njiitalu Bijou di leen jox dig daje ci 313 digital ak beneen kilifa ak yeneen i jamono incha allah. gannaaw jërëjëf.